sa sant ni ko sëñ bi ñaanee ñi ngi koy ñaanee noonu tàmmale sunu li nga xam ne moom lañ bëgg a def ci bisimilahi rahmaani rahim ñaan yàlla mu egg ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nañu ko yàlla defal di nuyuwaat ñëpp ñépp ñi nga xam ne tey ñoo teew fi ndax loo gis am na lu tax tey jii man mii di Raymond Curtis Abdoul Aziz di président mouvement jeunesse action pour le développement maa ñëwaat encore niñ ko defee woon daaw ñu ñëw ren di def cérémonie de remise de fourniture d'école pour les élèves waaye balaa ñuy tàmbali tey dañu am ay gan yu rëy ma ne balaa maa tàmbali dama leen di yëgal ne tey dañu am gan yu rëy ci gan yi maa ngi njëkkee sunu sëriñ sunu wasila sunu xarit sunu mbokk sunu àndandoo di sëtu sëñ Touba di sëriñ Mamor Bakke mii toog yaakaar naa ne gan mënul rëy rëy rëy rëy ba weesu Serigne Touba donc man awma lu dul sant yàlla sant yàlla rekk moo ma war maa ngi leen di ñaanal ngeen ñaanal ma may dondi sant yàlla ndax sëñ bi yàgguñu xamante waaye bi ñu xamantee ba tey moom mi ngi may laaj waa Aziz lan moo ñu boole man ma koy laaj lan moo ñu boole est-ce que dégg ngeen lim leen wax bu baax moom mu may laaj waa Aziz lan moo ñu boole man ma koy laaj lan moo ñu boole. xam nga ay question yoo xam ne amul réponse man mosuma ko xam mosuma ko dégg. parce que dañu ne tout problème a déjà une solution tout problème a déjà une solution loolu lañ xam loolu lañ jàng te looloo am mais bii point d'interrogation moom mi ngi ma koy laaj boobu ba tey man maa ngi ko koy laaj boobu ba tey waaye heure bu ñu toogaatee ma Aziz nañ ko bàyyi ci loxo yàlla ma ne ko kon moo fi sës <laughs> waaw donc nga xam ne du intérêt du alal ndax awma ko du xaalis ndax awma ko kon xamuñu lan la nañ jël lépp dénk ko yàlla donc yàlla mi nga xam ne moo ñu boole yàlla nañu yàlla téel diggante boobu yàlla am na ko yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal sëñ bi jërëjëf jërëjëf jërëjëf ndax yaakaaroon naa ne bés bi fàtte na ko waaye tey suba la ma woon ne ma waaw ban heure la nga xam ne nga xam ne nga xam ne fu ma teg dafa fort première jour mu ne ma Aziz mouvement bi yow dugaloo ma ci man maa ci ne cabax sama bopp loolu xanaa nit ñi war nañu posé wu question mané ko mouvement bi sa mouvement la lo ci wax lo ci def lo ci dogal yaw la lo ñu wax ñu def lo ñu diggal ñu def lo ñu na bayil ñu bàyyi bo ba légui nak ci lool lañuy dox señ bi yalla la yalla fay yalla la yalla fay yalla la yalla fay jërëjëf jërëjëf jërëjëf nga and ak sa délégation sa xarit sa doomu ndey nga xam fooy dem ànd ak moom di ma mbay mbay maja maja mbay maja mbay nekk nit ku baax baax nag weesuwul baax waaw jërëjëf ñu ànd ak sëriñ fay mbay fay aussi maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant sa délégation rafet na su ma jógee foofu dañu amaat beneen gan wala yeneen gan yeneen gan yi dama bëgg ñu sargal leen bu baax a baax a baax a baax a baax ndax def déplacement jóge ba kër Mbay Fall kër Mbay Fall jóge ba kër Mbay Fall daw ay kilomètres bàyyi seen yite yépp ndax madame Khady Tall bi ma wooyee jëm daf ma ne Aziz damay waroon voyager tey ci suba waaye dinaa renvoyer voyage bi ñëw ndax yow yaa ñu ko ji nga xam ne loolu dafa rëy madame Khady Tall boomu dama bëgg mu jóg ñépp xàmmee mi ngi nii madame Khady Tall moom moo yore mouvement gunge jigéen bu kër Mbay Fall waaye yemul kër Mbaye Fall kese mouvement bi mi ngi Thiès mi ngi Saint-Louis mi ngi Dakar mi ngi Guédiawaye fii sax ndax bañu demee am na ñu ngi fekk foo xam ne ñu ngi nee fii lañ dëkk te fii lañ jóge maanaam Khady Tall moomu ànd ak sa forte délégation ñëw ànd ak ñun ci bés bi yaakaar naa ne loolu lu rëy la damaa bëgg ngeen tàcc leen bu baax a baax a baax a baax a baax di leen wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf ndax jeudi lan leen seet ban leen seetee ma ànd ak sama délégation ànd ak sama membre bureau Sanu badian ànd ak Nabou Bass ànd ak Ndey Soxna Dieye ànd ak Sada Sall sama coordonnateur ba ñu demee ñun dañoo waaru ndax mobilisation buñ fa fekk ak grand dame ñi fa fekk ñi nga xam ne ñii ay couturière lañu ñii ay bureaucrate ñii ay grande commerçante di dem di tukki di ñëw di demal seen di dimbali seen ñu am xalaat bo xam sama benn xarit mo leen ne dem leen ci kii man doy ñuy wax awajara sama xarit la on a fait l'école des assurances ensemble on a fait AXA assurance ensemble mu may suivre nak sur les réseaux Facebook lu am rek daf may wo félicité ma keroog nag bi ma sama manifestation mu woo ma Néma. ma dam laa damaa am ño xamné ne man lañ yaakaar mais yow yow la yaakaar bari billahi sëñ mu ne ma dama am ño xamné ne man lañ yaakaar waye man yow la yaakaar mané ko ko koo yalla la yaakaar wallahi man mi yalla rek la yaakaar ko am yalla nak ñako dara kon suñu and bi nga xamné mom lañu fas jodi keur Mbay Fall sa salon ñu waxtan fa waxtan bu dal waxtan bu jaar yoon waxtanu nit waxtanu responsable nga jël engagement ngeen jël engagement seen mouvement bi ne ma sa mouvement ak sunu mouvement nañ booloo ànd liggéey xàccandoo doorandoo yaakaar naa ne tey jii moom ngeen prouvé donc si loolu maa ngi leen di wax encore jërëjëf jërëjëf si taxawaay bi jërëjëf ci confiance bi parce que def confiance nit dafa jafe confiance confiance dafa tumuranke si dëkk bi te nit ki bu jógee fu sori jox la confiance yaakaar naa ne loolu sant yàlla wér-wér mais tooy aussi sas na la yàlla nañu yàlla woyofal sas bi ñi bi nga xam ne moom nga ñu sas yàlla nañu yàlla jàppale lépp li nga xam ne jublu nañ ci yàlla yombalal ñu ko yàlla defal ñu xéewal lépp li nga xam ne ñu ngi koy bëgg a doxal yàlla ñu ko yàlla defal ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa maa ngi leen di gërëm et donc pour ñu jublu ci programme bi maa ngi nuyuwaat bu baax sunu vice présidente madame Assou Diouf nga xam ne duma duma ko dolli di ko gërëm ndax bi may tàmbalee dama ko dem seet yi ci salon lañ doon commencé ñoo ñaari nit ñetti nit ñu ko sanu waxee ba tey jii mu doon lii donc moom amuñu fayam yàlla ñu ko yàlla fay yàlla yàlla dàq seytaane yàlla ñu yàlla musal ci lépp li nga xam ne day yàq yàlla musal ñu si ak ñëpp ñi nga xam ne ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo téye mouvement bi mënuma lim ñëpp mais tous les membres du bureau nga xam ne ñoo nekk ci mouvement bi muy góor muy jigéen muy ndaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax bon continuation jàpp leen fi ngeen jàpp foofu la en dernier lieu maa ngi sant bu baax monsieur le maire di Sèye dama bëgg ngeen tàcc loolu ndax monsieur le maire di Sèye ci sama événement bii rek laa wax waxuma leneen sama événement bii daf ma woo ma ne ko ah tonton laa koy wooye ma ne ko tonton de dama am benn événement boo xam ne chaque année dama koy organiser mooy damay joxe ay kay ci sama doole ak samay partenaire di intérêt général ñu xam ne tey dañoo jàpp loolu moo tax ñëwuñu mais ab Ablaye Dieye ak El Hadj ñi ngi fi ñoom ñoo leen représenté Je ba Sacré Cœur comme la donc en plus la parrainé donc ma bu monsieur le maire maire de la commune de du